mbokki internetu seen acti tv ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne rek dal leen ak jàmm fii seen chaîne youtube seen acti tv tey nag dañuy ñëw ak ci di gën a fës ci xibaar yi xibaar yi niki tey dinañ ko door ak ministre de l' intérieur bu Sénégal bi di Antoine Félix Diome gannaaw ab tournée bu mu amaloon fii ci biir Sénégal ci dëkk yi nga xam ni mën mi laal na leen tey nag xëy na foofee ca Ndar ñu gën ko xam ci Saint-Louis ànd ak préfet boobee di Mor Seck directeur technique bu LONASE ànd ak askan wi ngir jëlee fa lii di tata ndox yi nga xam ne sunal na askan woowee gannaaw loolu nag taxaw na jàkkaarloo ak presse bi ngir xamal leen ni seen yittee ci mbënd mi ak lii di plan Orsec grippe bi di hémorragie de Crimée Congo mu agsi ci bu Sénégal gannaaw ba ñeent ci askanub Sénégal jot nañu am ci grippe ba kenn ci ñoom nag kenn ci ñoom sax jot ci ñàkk bakkanam di ab jigéen foofee ca diwaanu Podor tiis ak nakar la journal bi xëyee rawatina maison de production bu mag bi di Marodi TV ginnaaw ab génn àdduna tout tànk bi di Momo Camara mu ñàkkee bakkanam fii ci senegal ndax feebar bi di drépanocytose moo ko yóbbu foofee ca hôpital Wakam gannaaw ba mu fa hospitalisé woon nag kawteef ci diggante MF ak BS gannaaw ba ab sëy doxee seen diggante ki la di BS nekkoon foofee ca Kolda jab jabar bi nag nekkoon na fii ci ndakaaru da ko doon yónnee ay vidéo boobe ci bi lépp sëy yoo xamante ni sax dafa jege ay porno kile nag di BS gannaaw ba mu demee ba moom ak MF seen diggante commencé ñaaw mu génne vidéo yee yónnee ko lii di cousin ba sax nag ñu amal lii di sentence pour tëddee ki nga xam ni moo di xale bu jigéen bi fi mu ne coow nag coowlee mu ngi ci loxoy police bu parcelle police ne rek dañ ci daal di ñëw gannaaw ab coupure bu ñu faral di nemmeeku fan yi ci Sénégal ba tax na kii di directeur général ak syndical bu Sénélec amal na ab taxawu seetlu pour saafara li di coupure féministe bu mag bii di Gabriella Kane gannaaw ba mu defee foofee ca Touba joxe fa li di ndimbal dem na foofee ca Woso gi amal fa ànd ci ak association ngir yóbbu fa ab ndimbal jëmale ko ci bi lépp hôpital gannaaw ba ndoxu taw bi indilee ay loxaange naaw ab plainte bu Adji Sarr defee fi ci Sénégal di wax ne kile di njiital Pastef bi di Ousmane Sonko daf ko dal di violé moom nag ak i jege naa leem gis nañ ni bile di procès antuwul te tamit euh, bougé wul fi mu nekk ba tax na ñoom yi décidé nañ dem foofee ci Bruxelles ngir yóbbu fa procès bii ni nga xam ni moo dox ci diggante aji Sarr ak Sonko ginnaaw ki nga xam ni moo di aji Sarr tuumal na kii di Sonko ni daf ko violé. nag dinañ ko ndar képpee tey foofee ca Pikine ginnaaw nag ab néew bu commencé yàqu bu ñu gis foofee ca diggante arène nationale ba ak na technopole bu Pikine néew ba nag commencé nañu yàq fi mu ne nii nag lii di gendarmerie ak police ñu nga foofee pour mën a identifier lii di corps bi ba jébbal ko ay mbokkam. xanatu seen acti TV tey nag li leen leen indiloon ci li gën fës yi xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg ci yeneen information laata loolu nag way leen di abonné te bu leen leen fàtte di appuyé wu ci cloche bi pour di am suñu ay notification à la prochaine ci yeneen rubrique ci yeneen information fii seen chaîne de l'information SENactu TV